dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo yéen i kaay gii di réew mi quotidien moo xëy def dossier bu mag ci kasu yu nekk ci réewum Sénégal ak ay teemu témoignages yoo xamante ni yu doy waar la ñi nga xam ne ñoo nekk ci kasu yi maanaam jafe-jafe yu métte métti moom la ñu dund am na si ñenn ñoo xam ne daan na ñuy wax ne kasu yu jamono ji fees gi nga xam ne fees na ko maanaam jéggi na dayo am na ñoo xam ne dañuy tëdd ci kasu bi lu yàgg-yàgg te maanaam kenn du leen atte mën ngaa tëdd ci kasu bi toll si juróom benn ci maanaam ñu atte la tëj la ñetti at yéen gi nee na am na ñoo xam ne guddi gi yépp dañu koy taxaw am na ñoo xam ne dañuy dem ba ci toilette yi sax maanaam di fa fanaan taxawaay bu yàgg beek toogaay bu yàgg bi ak néeg yu xat yi tax na am na ñenn ñoo xam ne seen tànk yi day néew yi ba maara day taal ñenn ñi bu ñuy dem toilette sax dañuy ran yéen kay gi nee na am na ay néeg yoo xamante ni lu toll si ñaari téeméeri nit ñoo fay nekk journal bi nee na ñi nga xam ne ñoo nekk ci kas yi ci réewum Sénégal jafe-jafe yu métte métti maanaam moom la ñuy dund seeni jafe-jafe ko waaye natt daan na kay passé waaye nag bis bu courant amee ay jafe maanaam ci biir kasu bi courant bi tàkk maanaam court circuit bu boobaa bëri na ay détenu yoo xamante ni danañu ñàkk seen bakkan ci mbir mi maître Malick Sall mi nga xam ne moom lañ dénk wàllu woowu nee na état bu Sénégal ma ngi def ay jéego ngir nag kaso xat gi nga xam ne xat na ko ak nit ñu bëri ñi maanaam ñu daal di koy wàññi yéen a kaay gii de libération mu xëy di ñu xamal laan ñu neexul ba neexul waaye Abdou Karim Sall mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum environnement ci réew mi maanaam musiba ak mbelengaan daan na koy topp ginnaaw nag plainte bi nga xam ne waa parti démocratique sénégalais wax nañu ko maanaam waa am na benn député bu tudd Marème Soda Ndiaye boo xam ne moom tim saisir na assemblée nationale ngir nag Abdou Karim Sall ñëw ay leeral ci doxalin wi nga xamante ni doxalee na ko te ñenn ñi jàpp ne ay tojaange la ndax na dafa dem ci parc Boraniru xam ne ñëpp ko bokk askanu Sénégal gi yëpp maanaam mu jël fa ay kéwél yoo xamante ni anam ba jërul yoon ba am ay kéwal yoo xamante ni dee nañu si loolee moo tax ñu bëgg ko yóbbu assemblée nationale ngir nag mu indi ci ay gindi yéenekaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal naa ñu lu jëm ci wàllu dem ak dikk bi ci jaww ji ginnaaw ñeenti weer yoo xamante ni tëj nañu ko maanaam aéroport yi tey jii lañu koy ubbi waat jaww ji roppalaan yi commencé di naawaat lii quotidien xëy ci rapport yi nga xamante ni inspection générale d'état dañu koy faral di def ak cour des comptes wala OFNAC wala ARMP surnal bi nee na ay rapport la yoo xamante ni du mujj fenn te nag kër yi maanaam na xaalis bu baree bari moo fay dugg te ñi nga xam ne ñoom la ñuy joxar bi baaraamu tuuma amul yenn sanction yoo xamante ni danañu ko daal di gàll seenu ndodd loole nag askanu Sénégal daan nañu koy naqarlu ba fa naqarlu yam rapport yi sax jamono ji dem nañ ba nga xam ne dañu koy politiser ak di si doxalee ay règlement de compte te ñi nga xam ne ñooy def ay giraawaale ki tojaange rapport yu joxar bi leen baaraamu tuuma ñooñee la gën a maanaam jox ay poste yéen a kaay gi di réew mi mu ñu xamal naa ñu lu jëm ci rapport yi nga xam ne inspection générale d'état daat nañu koy génne société civile bi jamono ji ñoo ngi sàkku état bu Sénégal yëkkataay daan lal ko ci ndoddul ñi nga xam ne ñoo def giraawaale yeek njomb yooyu Dakar Times na bu ñu waxantee dëgg lan mooy njariñu rapport yi yéen a gi de la témoin xëy di ñu xamal naa ñu mal gouvernance bi nga xam ne moo am ci réewum Sénégal maanaam jéggi na dayoo li nga xam ne waa inspection générale d'état wane nañu ko ci ay mbuxum maanaam fu ñu ko natt rek paase na ko yéen a kaay gi di Sud Quotidien mu xëy di ñu xamal naan ñu njiitu réew mi di président Macky li nga xam ne digoon na ko askanu Sénégal bi muy toog ci bopp réewum Sénégal maanaam ak yoraange goo xam ne léppay leer waaye li ñu gis ci ayug Macky Sall gi ger gi mel ne ne tulleeg màlle mal gouvernance bi fu ko waaye natt paase na ko maanaam ay nit ñoo xam ne maanaam ay ndëng rek la ñuy def yéen a kaay gi di li Quotidien na mu ko tuddee maanaam banditisme financier yéen a kaay gi di réew mi Quotidien xëy ci li nga xam ne coow lu rëy la andi woon ci réewum Sénégal maanaam mooy mbirum Petro-Tim ginnaaw ab reportage boo xam ne waa BBC defoon nañ ko si ci lu jëm ci pétrole ak gaz bu Sénégal ñu tuumaaloon si Aliou Sall ak Frank Timis coow woon na lool la waxoon na dina porte plainte ñi nga xam ne ñoo koy tuumaal waaye nag ba léegi ni France daal na am na ñenn ci ay ci réewum Sénégal ak société civile bi ñoom te waxoon nañ ne danañu porte plainte Frank Timis ak Aliou Sall ak Macky Sall ci lu jëm ci pétrole ak gaz bu Sénégal waaye ba sunu yàlla jonne tey jii amul benn procès boo xam ne maanaam gis nañ ko ci te li ñu tuumaal Aliou Sall lépp ak appel à témoins yi justice bu Sénégal nee na amul lenn loo xamante ni gis na ko ni ay luq njur ci mbir mi yéen kaay gi de réew mi ko du cee mu ñu xamal na ñu en tout cas ni nga xam ne doxalee nañ ko ci lu jëm ci pétrole ak gaz bu Sénégal ak enquête bi doxalee wuñ ko woon benn yoon ci mbiri Karim Wade ak mbiri Khalifa Sall waaye nag li nga xam ne moom la ñu tudd rakku njiitu réew mi di Aliou Sall ngir nag feeñal ci dëgg dina jafe loola maanaam Assane Samb ci ak xalimaam nee na bu ñu waxante dëgg Macky Sall dafay làq ñi nga xam ne ñooy ay jege ñaaleema yéen kaay gi di Vox Populi xëy ci Covid 19 bi ak jafe jafe-jafe yi nga xamante ni andi na ko ci réew mi waaye nag rawatina marché jaww bi bi nga xam mooy marché bi gën a rëy ci Afrique de l'Ouest bi nee na marché jaww bi bu nekk lu toll ci juróom-ñaari téeméer ci ay millions la ñu doon liggéey waaye nag ñaari weer yi nga xam ne tëj ko marché jaww bi na nag marché bi ñàkk lu toll ci cinq milliards yéen kay gi di évidence mu xëy di ñu xamal ñu fukk ak juróom benn millions yi nga xam ne Babacar Ngom bu Sedima wax na ne jox na ko waa ko doon aaral toolam bi loole maanaam merloona waa gendarmerie ba jamono koy lijjanti journal bi ne nga xamante ni moom lañ fa bàyyi woon te mu jël ak fetal maanaam joxar bi ko ay député yoo xam ne demoon nañu fa tey jii gendarmerie bu mbuur dana ko déglu yéen i kaay gi du sunu làmb ñu fekk fa Gaston Mbengue nee pare na ngir tëgg combat Tapha ak Lac de Guiers numéro 2 su dee nag wax nañ lu yanu maanaa yéen i kaay gi nee na combat Eumeu Sène ak Bombardier taxaw na a 100 pour cent yéen i kaay gi xëy ci match bu rëy boo xam ne tey jii dina am diggante Liverpool ak Arsenal journal bi ak Pepe journal bi nee na am na ñetti ballon d'or africain yoo xam ne tey jii danañu bokk terrain bi